dañuy def point de presse ngir lan ngir wax ni kat aljuma bi di ñëw dañuy woo ceesuwaay ak sénégalais yi fépp fu sénégalais nek ci sénégal fépp fu ceesuwaa nekk ci dëkk bi nga don tailleur nga don coiffeur nga don yon central syndical nga don enseignant don père de famille nga don élève don étudiant facture de la cité yi donc impact bi ni ñu ko yoxé dana la fa fekk ñu ni kon nañu def rassemblement bac benen bi moy ñi nga xamanteni dañu jugoon rek ne nañu wañ facture de la cité yi ñu jàpp leen Guy Marius le docteur Babacar ndio ak nañu andalon tëj leen ci kaso yi xaajale leen ci kaso ndakaaru yi mu doon benn forme de torture yóbbu leen instruction ñu war a gis doyen doyen des juges mais ñu ko def un acte criminel ñu ni loolu dañ ko war a arrêté ñu libérer leen ñoom ils ont dañoo nekkoon nit ñuy dox naan d' accord ñu ñu conforme avec la loi ñu jàpp leen tëj leen et que ngir loolu arrêté ñu ni ci sénégalais yi kese la dépendre ngir loolu arrêté ci Ceesuwaay yi kese la dépendre su Ceesuwaay yi bëggee ñu wàññi facture de l'électricité yi su Ceesuwaay yi bëggee ngir Babacar Diop Guy Guy Marius Sagna ak ña ñu àndaloon nan nañu wax fan ñu ñu bàyyi leen Thiès waaye la ñuy woo ñu bëgg loolu ñu ñëw buntu Sénélec ajjuma bii di ñëw a 16h ñu def un grand rassemblement citoyen pacifique rassemblement boobu dañu ko def ci jàmm ngir wax ni kat loolu di dem loolu di am ñu ci. même nguur moo waxoon ci at bi weesu ne 2020 bii ñu jubli jublu courant bi dana wàññeeku bu baax a baax nguur boobu moo ñëw ba 2019 daal koy yokk nguur boobu moo ni waat 2020 da koy wàññi ñu ni kàddu nguur googu amul valeur trop ñu ko mënee jappé moy do ko japp ci ay kaddu dang koy japp ci ay acte dang koy jàppe ci ay acte ñu ni ñun loolu euh, bàyyiwuñ ko sa xel jàpp nañu communiquer bobu c'est nul et non avenu li ñuy wax moy nañu taxaw tém ne kat nañu wàññi facture d'électricité yi nañu wàññi courant bi té gannaaw sax nañu libérer ña nga xamante dañu jugoon ngir ni kat facture cher nañu ko wàññi su fekkee sénégalais yi ñom facture yi ñu yok naxari na len la mobilisation va va continuer et mobilisation bi dana yok que les sénégalais ñooñu nous nous ñoo Ils ne dañoo jugoon ngir ni kat facture dafa dafa dafa cher bëgg nañ sénégalais dañu partout au Sénégal et devant la ngir ni kat nañu donc lay sur la pression continue le président va revenir sur cette décision.